رب العرش العظيم ذي القوة المتين ذي المجد والكرم ذي الطول لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الحي القيوم وكفى بالله وليا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayidina wa xabibina wa qudwatina wa shafiicina wa azimina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli allahumma ya muallima ibrahim allimna wa ya mufahima suleyman fahimna allahumma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilman wasalaatu wasalaam rasulillah assalaamu aleykum ixwat alkiram wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ndoglu seen rajo seen mbokk Imam Mor Seck mooy ñëwaat dellu si waat waxtaan ak yéen ci lislaam noo ngi sant yàlla mi nga xam ni mooy boroom lépp yàlla mi nga xam ni moo fàkk asamaan suuf fàkk déndi bi defar ndejoor defar càmmeñ penkook saw noor ak sud bind ngelaw bind gàncax bind daabo bind géej gi bind jéeri ji bind nit lépp lu nekk ci kaw suuf amul kenn ku sañ wax ne maa ko bind lépp lu nekk ci kaw suuf amul kenn ku ne man maa ko defar nit defar lu rassemblé yàlla def lépp ndax moo ne rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma neeti rabbul mashariq wal magharib kon ana lu fi nit créé ana lu fi nit moom da nga ko fiy bàyyi keneen jël ko kooku bàyyi ki fi keneen jël ko kon yow sa jamono bu ñëwee rek liggéey liggéey bu rafet bés ak nettali neex a déglu kon yàlla moom subhaanahu wa taala mooy borom tedd ngee mooy borom kàttan mooy borom trône bu rëy bi mooy borom teraanga ji bon kañ ku bëgg a wakiilu ci moom am doole bu dee wakiil doy na wakiil bu dee àndandoo doy na àndandoo bu dee ndimmal doy na ndimmal bu dee réglé ba xam-xam ba ak teew ak yëpp omniprésent yàlla fépp na ne kon yàlla moom nu ngi koy sant ci at mu yees mii nga xam ni may nanu ko nu du nu génn ci at mu wéy dugg at mu yees te li ci gën a jàppandi li gën a doy war moo di at mi jeex mu ngi ko jeexale ci weer yi ñu ormal at mi commencé mu ngi ko commencé ci weer yu weer yi ñu ormal kon bu doon bu une dissertation dañu naan une bonne introduction appelle une bonne conclusion parce que ñaari weer yi bii muy dul qaadati aw dul hijja bu la neexee aw tabaski bii di muharram seen ñaar seen diggante dara dara doxu fa dara doxu fa muy ñaari weer yu yàlla ormal ndax yàlla mënu xamal ne ci téereem bu tedd bi nana at mi fukki weer la ak ñaar ba mu bindee asamaan ba léegi at mi fukki weer la ak ñaar fukki weer ak ñaar yooyu nag ñeenti weer ngi si yoo xam ni man yàlla maa leen ormal bu leen si tooñ seen bopp bu leen tooñante ñeenti weer yooyu nag képp koy julli da nga war a xam tooñ masta baax waaye nga gën ko moytu ci weer yi moo di aw diggi aw tabaski aw tamxarit ak ndeyi koor zul zul hijja zul hijja muharram kon bu nu yàlla mee nu dund bi at mi jeex nu jeexale ko ci weer wi yàlla ormal dugg nag ci benn at bu yees dugg ko ci weer yàlla ormal comme foofu lu fi jànge moo di nanu jàng orma lu nu amoon ci orma nanu ko gën ko yokk orma suñ diggante ak borom bi subhaanahu wa taala orma suñ diggante ak nun orma suñ diggante suñu bopp orma waaye suñ diggante ak nation bi orma suñ diggante ak gàncax gi orma ak suñ diggante ak toutes les créature yàq bañ a am sabotage bañ a am nu jox géej gi ormam jox jéeri ji ormam jox jaww ji ormam jox daabay ormam jox lu ne ormam ndax ñoom kat dañoo dugg ci biir ormay yàlla ndax yàlla ne na ba mu bindee asamaan ak suuf ba léegi at ma fukki weer la ak ñaar ñeenti weere ngi si yoo xam ni man ma ni ormal waxoon nañ ko sànq aw diggi aw tabaski aw tamxarit ak ndeyu koor waaw weer yooyu yëpp nag mala yaa ngi si noog mala yi nooy dundandoo ces quatre mois qui sont sacrés géej gaa ngi si jéeri jaa ngi si jaww jaa ngi si plante yaa ngi si lépp ngi si ces ces quatre mois kon loo ne nang ko jox ormam bon nag bu nu yàlla may orm may nu ndimmal nu dund at mi bi at mi jeex dugg at mu yees lanu war nun ñëpp moo di alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wax lanu nan ko wax nun ñëpp alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wala azimi sultanika wa majdika yaa rabbana laqal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wala azimi sultanika wa majdik yaa rabbana laqal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wala azimi sultanika wa majdik yàlla na ne wa in wa in shakartum la azidannakum kon ñëpp nañu bokkandoo sant borom bi subhanahu wa taala ci at mu yes mi xam ni yàlla ormal njeexit gi ormal njaalbeen gi ñaar yooyu nag dañu noo tànc te ku te ñaari orma bu bu tàncee doomu aadama bi yàlla gën a teral ci kaw suuf doomu aadama ba war na góorgóorlu jàngaat ormam te orma nag paasewul lii de fexe ba am kers ak ngëm yàlla ngëm yàlla kers te ñoom ñaar duñ teggoo xunu xool nag at mi ñu génn ak at mi dëgmal at mi passé lu nu dëgmal lu nu fu nu toll ci gëm yàlla ak kersa moo tax thème bi ci thème mbokk yi du tudde ko alxaya wal awarid allati tusabbib fachal l ummati wal mujtama wa samat xaya xaya sunu temu tey mbokk yi nu ngi ko tuddee kersa gu ànd ngëm ak ses supposants yi nga xam ni ñooy waral échec gu umma wala échec gu société bu neppee nag andi les fruits de la pudeur euh, alxaya wal awarid allati tusabbib fachal ummat wal mujtama wa samarat alxaya ni nu tëral nag plan bi mbokk yi moo di al muqaddima introduction waqul xaya impact de la pudeur al-haya wal iman tawamani la pudeur et la foi c'est des jumeaux al-awarid al-haddama les éléments détruisants ensuite ñu ñëw si samaratul hayat wal iman les fruits de la pudeur et la foi ñoo ne si conclusion bi delluwaat gannaaw tudd yi nga xam ni mooy les différentes phases yu ñu jaar ak lenn ci ay alquran ak lenn ci ay ahadis ni ba yo mbokk yi di mooy sunu waxtaan te door andi ay nuyoo nag ak ay ñaan mbokk yi ixwati fillah naqul inna alxayaa min afdali sifaati al-insaan wa ajmali kamaali yataxallaa bihi al-muslim wa ajal nicami llah alayhi li'annahu huwa alladi yajcaluhu mahbuban bayna macaarifihi muhtaraman ida xadara indahum ممدوحا إذا غاب عنهم والحياء هو الذي يمنعه min al iqdaam fi charri wal xafa ala amalin ala amali amrin yakrahu ay yaraahu gayruhu alayhi mbokk yi bu ñu gisee suñu muqaddima suñu introduction nu ne kers bokk na ci les meilleures qualités de l'homme min afdali sifatu insan yi gën a am vertu vertu le parmi les meilleures vertus mu ni kersa def ci bokk ak la plus belle perfection des qualités maanaam qualité yi gën a am yi gën a ràññee te baax tey defar société yoo xam ni moom la julit bi di solu bu doon ay yére mu ne moom na war a sol te it moo gën a fës gën a baax gën a jàppandil si wépp xéewal gu yaay dox doom jox doomu adama ndax mooy tax doomu aadama boobu nekk di ku ñu ku ñu bëgg ku ñu wekk ku ñu respecté koo xam ne kii ay ay connaissance am moo xam dëkk la ak dëkk moo xam quartier ak quartier moo xam région ak région moo xam ak kër ak kër wala néeg ak néeg wala bureau ak bureau wala marché ak marché partout fu doomu aadama ne nee bu amee kersa ñépp a bëgg bon kersa bu amee dafa am lu ko lal moo di la fois al kon kersa googu nag nu xool at mi jéena fi nu jaar yi yëpp ci ay njumte nu góor góorlu dundaat kersa ci nekkin wi dundaat kersa ci liggéey bi dundaat kersa ci amlante bi dundaat kersa ci jëflante bi dundaat kersa ci kër yi dundaat kersa ci néeg yi dundaat kersa ci ci ci pacte yi ak contra yi dundaat dundaat kersa ci correspondance yi dundaat kersa ci dëkk ak dëkk surtout dundaat nag kersa suñu diggante ak suñu boroom dundaat kersa suñu diggante ak suñu bopp waaye dundaat kersa si suñu diggante ndax kersa googu mooy tax nit ki moo koy freiné bee du avancé mukk ci lu bon mbaalu ñaaw mbaalu xojom mbaa loo xam ni day tilimal réew tilimal dëkk tilimal nit tilimal jikko tilimal liggéey tilimal euh, dikkan diggante yi ak diggale yi kerse ko mooy tax loolu du am te moo koy empêché bi du def loo xam ni su wéetee du ko def mukk comme bu wéet ko bu ñu jëlee si ibn ibn Mas'ud yal na ko yàlla gërëm mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam góor yi góor ñi jàmbaar yi jàmbaar yi moom mi nga xam ni moom la yàlla joxuñ na ko wa innaka la ala xuliqin azim te jikko bu ci kersa amul amul solo boo jëlee ngëm jël jikko mooy defaral réew xaalis new lu moyen lu xaalis bari bari te kerse amul ngëm amul amul solo pouvoir lu mu am am doole lu mu am am mbooloo te kersa amu fa ngëm-ngëm amu fa du sotti xam-xam lu mu yaatu yaatu yaatu te ngëm amu fo kers amu fa du sotti kon moo tax yonent bi ne ni ngeen am kers seen diggante seen boroom te Ibn Mas'ud nettali ko luñ ko tontoo ñu ne ko euh, qulna lanastaxiya min allah ya rasulullah walhamdulillah ah dëgg dëgg day am nañ si yàlla kersa ñu ngi sant yàlla baax a a baax loolu moo nu yóbbu nag ci impact de la pudeur maanaam kerse li ci mën doole ji mu am force vitale bi mu am énergie bi mu am ci société énergie bi mu am ci bureau yi ci relation yi relation politique économique sociale éducative ak yu ni mel yëpp toutes les sortes de relations na sa kersa amee doole dëgg moo tax in lam yastax in lam tastaxi fasna ma fasna ma chita soo demee ba kersa ji tàqale ko ak yow dafa loo mbokk yi baat bi yaatu na de in lam tastaxi soo demee ba kersa amut loo ko dafa loola neex bu ñu bon bu seet la baat bi ak at yu ñu dund yi passé dafa mel ni bon kers daaw nu ko dund wala ba lu néew lu gaañ yi si gaañ si am loraange yi si am tàcc gi si am noggatu gi si am ëpp doole gi si am wane wane wane sa doole gi si am wóor na wóor nekkoo ci dëgg waaye fexe fexeel nga ba saxal dëgg ne yow sa dëgg jaamu yàlla gi tax suuf ñàkk a déggoo am ku nekk di xëcc jëme sa boor yooyu yëpp kersa gu manqué la mag xale xale wegatul mag mag yërëmatul xale toutes les couche lu néew moo fa am kersa bu nu seetloo àdduna bi ni muy ni muy doxee yëpp nga seetlu télé télé la fay daw si yenn saa yi lire lii les journaux lañ lañ see bind yenn saa yi yenn saa yi dafay baax yii dafay ñëw nekk le contraire te doomu aadama yàlla ko bind pour mu def pour mu la moo monde entier yooyu yëpp nag kerse bu jógee ci télévision kerse bu jegee ci whatsapp yi kerse bu jegee ci lépp lu bind les journaux et les revues njëriñ amatu fa kerse bu jógee ci école yi njëriñ amatu fa kersa bu jógee diggante waajur njariñ amatu fa kersa fu mu jógee rek njariñ amatu fa te yaakaar na nag jamono bu ñu ñàkkee kersa suñu diggante suñu borom li des yëpp dañu ñàkk kersa bu ñu ñàkkee suñu diggante suñu borom li des yëpp dañu ñàkk kersa moo tax bi ne soo dee bi amatuloo kersa dafa la neex moo tax bi saxaaba yi ne yaa rasulullah nu di am nañu kersa si borom bi subhanahu wa taala mooy leen ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة زينة الدنيا والآخرة الأولى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة mu ne du li ngeen foog de am ak lu ngeen am am kersa mais kers dëgg mooy nga préserve sa bopp bii di si ne fexeel ba bopp am kers bopp leen moo composé bët yi nopp yi làmmiñ yi xel mi yoor gi donc lépp les les composant de la tête bi crâne bi yëpp les composé fexeel ba dugal si kers fexe ba dugal kersa ci sa biir loolu bàtt na li ngay lekk li ngay naan foo nga koy jëlee na lew na dagan biir biir ak lépp la nga say dugal na nekk lu lew te dagan te mu lekku te mu lekku it bon yaa ngi am nga kersa te foo toll nag bàyyi xel ci dee ku bëgg nag àllaaxira bu neex da ngay woon da ngay woon gannaaw àdduna mu ne fa man faala zalika faqad istaxya min allah xaq xaqal xayaa ku def lii day na na am kersa si yàlla ba tax na yutlab yatlub min rasul sallallahu alayhi wa sallam an natruka kulla qabixin istiyaa min allah wa an nafala kulla malixin wa hada la yakunu illa بحفظ الحواس عن المحرمات الرأس وما وقع فنحفظ ألسنتنا من الكذب والزور والنفاق والرياء والغيبة والنميمة والسباب ونحفظ سمعنا من مقالات السوء والعبارات الماجنة والأغاني الخليعة ونغض البصر عن كل ما حرم الله wa nubilu aqla an tafkir fi ma yugdibu llah wa kadalika xifdul batni wa ma xawa mu ne ci ngir kerse gi yonent bi sàkku si nun nu bàyyi lépp loo xam ne lu ñaaw la ngir amee ko kerse diggante suñu ak fu nu mën a ne ak daraja bu mën a am grandeur buy mën a am degré buy mën a am xam-xam bu mën a am am-am bu mën a am mbooloo munu mën a am nañu bàyyi kersa suñu diggante ak suñu borom nu def loo xam ni day neex borom bi subhanahu wa taala bu fekk yii yëpp dafa la jafe woon ci ak mi passé ak mi dugg feexal nga cultiver encore la pudeur te nag loolu du nekk mu du su ci wattu alxawaas les santiment wattu li nga xam ne doomu am daf koy yëg ci lépp loo xam ne lu aram la loxo bi tànk yi biir bi bakkan bi bët bi nopp yi lépp cëram yi yépp mu góorgóorlu ba cër bu ne am kersa te mooy bopp bi ak li mu ëmb fa naxfas alsinatana nu foot suñ làmmeñ ci fen ak seere ak dóor ak nifaaq nafiq hypocrisie ak riya ngistal ak xiiba ak jëw namme ak rambaaj wa sabab sabab ak ŋàññ wattu suñu déggéen ci wax yoo xam ni wax bu ñaaw la wala express yoo xam ni dafay din dafay dafay dindi ji koy nit wala di déglu ay chanson ay woy yoo xam ni ku ko déglu dëgg dëgg dëgg xam ni kii de dafa ñëpp yàq yàq une société gëmmul suñu bët ci lépp loo xam dafa araam ci yàlla fexe ba suñu xel nu soreel ka di xelaat lu bon lu ñaaw lu lu tax suuf lu yàq diggante lu yàq réew ak réew lu yàq nit ak nit lu yàq euh, diggaale yi lu yàq pacte yi lu yàq colère yi waaye lu yàq lépp loo xam ne defar réew lu fexe ba solo suñu xel ci loolu ci noon it wottu biir ak li ci biir kon mbokk yi yi nga xam ni lim nañu ko at mi wéy paasal na nun ñëpp koo xam ne kii lenn ci li daan ko dunde ngir kersa gu sori ngir kerse gu manki nanga dabaatal ci at mu yees mi nga xam ni ñaari weer yu orma ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo mu di tabaski ak aw tamxarit orma yooyu nag bu nu suubaatal suñu jukk ci biir dabaatal ki ci biir réccu ci biir boo nekk tuub te mu dëggu yàlla na ma effacé lépp kon mbokk yi fa innahu la yaati illa bil abdi an ayn la xaraam nee na yëpp la tàmm jëw tàmm fen tàmm seede aw duur tàmm nafiq tàmm rëy tàmm jëw tàmm rambaaj tàmm ŋàññ nee na loolu ki waral yëpp mooy lekk lu araam tàmm lekk lu araam tàmm naan lu tàmm naan lu araam ndax li ngay lekk li ngay naan moo lay motiver nga def li mu bëgg kon yàlla bu ñu teree lu araam day bañ ñu def lu araam moo xam ci naan gi moo xam ci lekk gi la lu ci mel ni corruption ak xeetam ndax la ngay dund di ko naan mooy dem moo lay moo lay motiver sa axe yëpp da ci basé bon lekk ak naan day motiver les actions de l'homme kon wëttu pay sa awra ngay xalaat noo mën a fexe ba ba sa awra mucc sa yaram nga moytu ko ba mu ba mu mën a ñoŋ fexe ba sa économie ñoŋ fexe ba sa éducation normale fexe ba xamxam xam sa enseignement normal fexe ba sa diine normal sa politique normale relation bilatérale national internationale normale les portefeuilles les pouvoirs les pactes et les contrat yooyu yëpp normal ci jamono ba kersa instauré ci nit ki lii dafay yomb kersa bu instauré ci société corruption dafay jóge waaye mën a wattu sa awra sa sa sa sa cër yi day day yomb waaye mën a defar sa xel day yomb waaye sa yaram baax day yomb waaye it nga am sécurité day yomb waaye it sa économie baax day boobu day yomb waaye sa enseignement day baax rawatina nag sa diine day baax bu dee politique boo ker sa lalee day baax mu nekk mën mu nekk politique rationnelle potentielle positive ci relation yi ak monore yi ak colère yi ak ki lépp surtout pour la sécurité fu ker sa am sécurité dana yomb kon mbokk yi lii boo seetloo moo di alxaya mooy pideur ak ngëm ay seex lañu seenu jëm mu ne alxaya nizaamul iman qaal ida lam tastaxi fasna ma shi'ta waxoon naa ko si impact de la pudeur yonent bi ne bu fekkee ni yow amatuloo la defal lu la neex mboo xoolee rek actuellement adduna bi di si am rey sa doom rey sa rakk rey sa mag barakaas bi yàmbaa du jeex sàngara si du jeex càcc gi du jeex carte gi du jeex yu bare yoo xam ni dafay de nit ak nit te nag ku gëm ku sa ngëm dëgër da ngay moytu yi mu tax mu ne alxaya nizamul iman mun la pudeur système de la foi li mën a jëriñoo nag mbokk yi alxaya xayru kulluhu fi jami marafiqi alxayaat ci hadis bi yonent bi wax wax ne kersa léppam yiw la sur toutes les couches de la vie mu ne man kasura xayaahu kasura xayruhu képp koo xam ne kii kersam dafa bari yiw rek lay am réew moo xam ni kersa dafa bari réew moom yiw rekk lay am kër goo xam ni kersa dafa bari yiw rekk lay am néeg boo xam ni kersa dafa am yiw rek lay am mbooloo moo xam ni kersa boo fa fees jàmm rek moo fay am maam toutes les couches boo xam ni pudeur moo fa am jàmm rek a fay am mu ne woon na nag wa man qalla xayaauhu kasra charruhu ku sa kersa néew nag saw ay bari ah boo tuuti ku sa kersa néew saw ay bari xool leen bi ni muy doxee ni muy tëdd léegi ni ay yi bare ni kuwante bi bare jàppalante bi si lu dëgg ni mu bëree yaama nekk ni mu bëree corruption bi ni mu bëree olde bi ni mu bëree ñàkk lekk lu dagan ni mu bare mbaa ñu jox loo xam c'est pour le peuple nga gànnaay nga nga gànnaay nga jël ko yow tout mbaa nga def si tànni biir yooyu yëpp ñàkk kersa la kon bul tànk tromperie amul tànk corruption amul nu ngi dund kers ba tey bokk na si an laa yufshi an laa yufshiya sirra man awdaa amrahu ilayhi ku am kersa doo vilipande secret bu ñu la dénk dénk la secret moo xam secret d'état la moo xam secret région la moo xam secret kër la moo xam secret bureau la moo xam secret mosquée la moo xam secret daayira la secret bu mën a doon ñu wóolu ba dénk la ko boo boo dee borom kersa doo ko doo ko wax mukk ne na wa an laa yaxtalisa maa laysa lahu fii xaqun mu bañ a usurper loo xam ne amu ci droit maanaam bu mu nangu bu mu foqati loo xam ne moomu ko mbokk yi foqati si réew bi de foqati kër jàmbur foqati suufu jàmbur foqati jabaru jàmbur foqati bureau jàmbur toutes sortes de foqati du jeex si réew mi ak réew ku am kersa nag pudeur ku am ku am kersa gu li liimaan lal doo nangu suufi jàmbur doo nangu këru jàmbur doo nangu soxna si jàmbur doo nangu alali jàmbur doo nangu tituru jàmbur da ngay yem ci li nga xam ni moom la la yàlla jox te ko yem si la yàlla jox ngi jëfe ko yàlla bëgge yàlla ne dama koy barkeel ittaqillah ya'lamkallah ragalal yàlla ma xamal la fooy jaar ba am kon فالحياة نظام الإيمان والإيمان هو المحرك nena pudeur kersa mooy système mu gëm yàlla te gëm yàlla mooy moteur bi nga xam ni mooy mooy mooy wëndaalu mooy wëndeel wëndeelu nit ba nit ki mën a marché comme ni muy rouler ci oto oto bi di dox na mu waree oto bu bees wala même bu sax donc le moteur de la pudeur c'est le cœur te mooy le bateau sauveur safina najat ne na iman gu ànd ak pudeur gëm yàlla gu ànd ak kersa mooy bateau bi nga xam ni ku ci dugg sauvé mbokk yi yaakaar naa ni yii day ku ci tënku di nga xam ne gëm yàlla ak kersa ñoo ànd ba tey nu ñëw si par rapport at mi dund bi wéy ak at mi xam dugg nañu ko fu mu toll si yi may yi may yi may bëgg a wax wax naa leen la pudeur ses effets ses wax na leen pudeur la pudeur et la foi système de vie wax yi nga xam ne itam ku ko amul amuloo amuloo amuloo amuloo kersa nu ñoo li nga xam ne mooy yàq la pudeur mu ne adamul iman al kazibu al xiyaana al jahlu al xasad al kibru al bugdu al xiibatu annamimatu aklul haram shorbul haram intishalu zulmi alkasal alghish alrashwa irtikabul jaraim intishalu amrad kasratul maasi wa zunub yii day ñooy yi nga xam ni ñooy yàq kersa bu njëkk moo di ñàkk gëm yàlla ak fen ak wor ak réer ak kañaan ak rëy ak mbañeel ak rambaaj ak jëw ak lekk lu araam naan lu araam tooñ tooñ ko tas ci àdduna bi yépp tooñ ko tas tayeel naxaate corruption crime yi jeex feebar yu ne gàññ mooy gu mooy gu yaatu lool ak bakkaar yii de mooy tax bu amee kersa jóge fi waaye nag si yéeme lim yëpp ma tànn ci benn boo xam ni dafay dafa dafa dafa fees ci réew mi ak réew yu yu yu wër yëpp mooy lan mooy serbul xaram naan lu aram naan lu aram yi la ma si tànn moo di alxamru mu di xamru mooy sàngara ñoll wi lu tax li annahu yaxmuru al aql day muru xel te xel la yàlla jox doomu aadama mu war si disséquer les choses war si liggéey war si jaamu développement pays développement bu na doon bu ci xel génnee du sotti xel mooy defar réew mooy defar éducation mooy indi développement mooy indi politique maanaam lépp loo xam doomu aadama taraangam da si juddu xel moo koy xalaat la yàq nag xalaat yàlla ne la bu ko def muy muy alxamru day muur xel te muur mu muur xel bu muuroo jeex na xel bu muuroo jeex na moo tax yàlla ne afalaay tafakkarun du ngeen am du ngeen gësam du ngeen discuter les choses du ngeen réfléchir du ngeen xelaat man maa ngi wax ngi am xel kon li nga xamee ne sàng na ko yàq lan mooy ses conséquences di afu damair conscience yàqu dihabul haya kersa dañ nabdul axlaaq jikko yu yàqu irtikaabul jaraim crime yi na gàññ uquul adawaati wal baxda xeex yeeg noonu noonu ak autorité du jeex idaatul mal alal ji sànku am ay milliards te xama fu mu jaar silsilatul mashajiraat xeex bu na gàññ xuloo bu na gàññ naqtul aqli xel yu dellu gannaaw duufal irada volontaire bu faible bu am faiblesse faqdul salaam jàmm ñàkk adamu rahmat yërmande ñàkk dooful imaan gëm yàlla dellu gannaaw adamu tafaaxum ñàkk déggoo ngir intérêt social kon yii man yaakaar naa ni buñ ko seete càmbare ko xool at mi nu passé lan lan su doon dund ngir ngir ngir ñàkk mat bu nu góorgóorlu dabaatal ko si at mu yees mi yàlla subhaana taala mi ne soo wooree koor gi fukkeelu fan bi eh, yàlla bàll sa bàkkaaru moom ci gën a ci kanam te xam nga yan nga si def ba yàlla may la baaxee la ba nga fekk at mu yees mi at mu yees mi nga xam ne ñaari la kii yi ko séq atum atum tràng la mu di at mu yàlla weeru yàlla ormal mu di aw tabaski ak weeru yàlla ormal mu di aw tamxarit yàlla may la ñaar yu ñu tànc la kon nag yii nga xam ni c'est des méfaits nu moytu ko ci réew mi moytu ko ci kër yi moytu ko ci fépp ci liggéey yi ci bureau yi ci marché yi ci relation yi ci amlante yi diggante diggaale yi yii na nu fexe ba kersa defaraat ko bu ñu ko defee day mbokk yi dañu am at mu ne atum naa tànge ndax bu nu amee kersa dëgg dëgg dëgg lii nga xam ne moonu moonu jaaxal dafay jóge ndax kersa mooy bu def lu yàlla bëggut kersa mooy nga respecter les normes kersa mooy nga respecter li nga xam ni day doxal réew baaxal réew boole ay diggante di defar économie defar éducation defar xam-xam te yëpp na nga teg nag si gëm yàlla yii bu amee mbokk yi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy mucc kon bu ñu fi jógee eh, suñu conclusion moo di lan mooy les fruits de la pudeur lan moo di meññeentem kersa ñu ne xabul xaqi al amnu al ilmu alsakinatu altaqaddum aliqtisaadu almahabatu albarakatu alihtiram bayn duwal altaaruf maiyatullah alfawzu altaqaddum ilmiyan fikriyan aqliyan iqtisaadiyan siyaasiyan saqafiyan yii lay mbokk yi moo di les fruits de la pudeur et la foi bu njëkk moo di xabul xaq nangu nangu nag dëgg nga nangu dëgg ak loo nekk ni kilifa njuumte du wees amul kenn ku juum kon nga nangu dëgg mooy tax sa kër dox nga nangu dëgg moo tax sa quartier dox nga nangu dëgg moo tax sa dox nga nangu dëgg moo tax sam réew dox kon dëgg nga na xam ni man mii njuumte la defoon man ma accepté loolu grandeur moo ko mën a may may grandeur mooy nga nekk kilifa accepté man maa juum ak foo ma ne kilifa rek nga nga man maa juum ndax matuma loolu rëy la loolu rëy rëy la fa yàlla mu ne al nu sécurité bokk na ci les fruits ku ne xam ne ñépp ngi góorgóorlu pour am sécurité al ilmu le savoir la connaissance xam-xam bokk ci plus de la pudeur à la quiétude ak dal te dal mooy lépp nag ne na a taqaddum progrès ak yokkute dana juddoo ci pudeur ci ci ci ci ker ci économie bu baax dana si juddoo al mahabbatu cofeel amour dana si juddoo al barakatu barke dana juddoo ci kersa alhtiraam benn duwal respect entre les pays les états respect entre les les états dana si juddoo dana si nana a taaruf xamante dana si juddoo inna jaalnaakum suuba wa qabail maayatullah foo tollu yëg yàlla dana si juddoo alfawzu réussite dana si juddoo ataqaddum progrès si lan progrès si xam-xam ci xalaat ci xel ci économie ci politique ci culture ak lu mu ma doon yooyu yëpp nag yàlla subhaanahu wa taala tëjal ko ci aayam bu tedd bi mu ne allahu waliyu ladina amanu yuxrijuhum min zulma ila nuur walladina kafaru awliyaa'u at-taaxuut yuxrijunahum mina nuur ila zulumaat aaya bi tënk li ma wax yëpp aaya bii dafa tënk li ma wax yëpp mu ne yàlla mooy ñi nga mooy ki nga xam ni moo am moo méngoo ñi gëm ñi am kersa te gëm neen wóor na ñu ngi méngook yàlla ndax yàlla li yàlla moo leen di génn ci ay lëndëm lëndëm yóbbu leen ci leera waaye ñi amul kersa amuñu gëm seen kilifa yëpp mooy taaxuut taaxuut mooy lu amul lu yàlla newul ne ay kese nen kese yooyu nee na kese nag moo lay génn ci leer yóbbu ci lëndëm kon mbokk yi euh, nu ngi leen di ndokkeel ci at mu yees bi di ñaan yàlla nawetu jàmm atum jàmm yal na yàlla jéggal waaye dawlu yi yal na yàlla wéeral ñu nekk hôpital les yal na yàlla gën a dooleel kilifa yi nga xam ni yàlla leen tax nu ñuy def réew mi yàlla dolli fi xam-xam dolli fi naataange dolli fi juboo dolli fi wér dolli fi sutura dolli fi kersa dolli fi ak ngëm yàlla bu baax a baax a baax dolli fi ak déggoo alal ju lew te dagan alal ju lew te dagan alal ju lew te dagan yàlla nag fi yàlla gën a yaatal lépp loo xam ne alal ju lew yal na yàlla wul bu tur lépp ba indi alal ju lew xam-xam bu lew xel mu lew dégg gu lew lépp loo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo te jëfandikoo bu baaxul lewut waaye lépp lu ñu jëfandikoo lu mu néenoo te mu lew day barkeel kon nag ñu ngi siyaar mbokk yëpp di ñaan suñu kilifay diine yi suñu kilifay aada yi aada yi suñu kilifay yi euh, lépp fu ne fu ne ab fu ne fu yàlla def kilifa rek nu ngi koy siyaar di ñaan yàlla barab ba ko yàlla teg yàlla na ko yàlla orienté ba mu def lañu neex yàlla fu waay nekk kilifa ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla orienté ba nga def lu neex yàlla foofu mooy nekk njëriñu réew mi njëriñu àdduna bi yëpp tamxarit bii nag ah xam ngeen mooy at mu yees bi kon nag yal na yàlla beesalaat suñu suñu suñu jëf yëpp jéggal lu suñu lépp lépp lu nekkoon bàkkaam lu taxoon suuf lu nu yàlla noonu jàpp yal na yàlla jéggal nu ko baal nu ko ndax noo xaj si moom moom xëyul si kon nag xam-xam beeg kër yeeg borom kër yeeg. liggéey yeeg chef nu ñu chef ak fépp ak lépp yal na ko yàlla defaraat jàppandi ko wér am fa déggoo am fa mucc am fa am am gëm yàlla am fa déggoo am fa dem dem dem leen bi ak dikkale bi am fa déggoo am te yàlla te te ak naataange kaaraange am fa yal na yàlla dolli Sénégal kaaraange gu ànd ak teraanga yal na yàlla dolli Sénégal kaaraange yéen yàlla dool di senegal ak képp ku dëkk Sénégal fu Sénégal ni si àdduna bi yëpp nu ngi nuyu yëpp waaye diaspora bi nu ngi ne nuyu bu baax a baax di jël nuyoo di ko teg si loxo Papa Papa Omar Diaw mu nuyu nuyu ñëpp ñëpp nag di nuyu nag Bargny bu baax a baax nuyu Tëngéej bu baax di nu Ndakaaru di nuyu Sénégal gépp di nuyu Kaolack fàttali ñu Ndar nag waaye daal di nuyu Sénégal gépp gépp gépp gépp ndax at mu yees la bon ñëpp la nuyu boole nuyoo bi maa ngi leen di santal nag di nuyu bu baax El Hadj Lata Samb El Hadj Doudou Ndoye di ko gën a ñaan wér suñu woy suñu woy El Hadj Amar e di ñaan e di nuyu bu baax xadara El Hadj Abbas Thioub fàttali ñu jabootu Ousmane Gueye sëñ sanguy sanguy dàgg di nuyu nag ah, imam Adama Ba ak jabootu Bayon yëpp fàttali ñu kenn si bari jàkk yi jumaa yi tinga yi yëpp di nuyu Tahir Fall fàttali ñu daaru daaru jaboot gi nag ñu ngi leen déwénal di di wax bu baax eh, njaboot gi ndax yu nuy fan àll te ñu moom ko ñu nuy fan àll ngir ngir doxal lislaam ñu ngi leen si encouragé di leen ñaan yàlla yàlla faj seen aaja muy doom yeeg seen yeeg jarbaat yeeg soxna yi yëpp yàlla na yàlla dafa leen tawfiix dafa leen ak déggoo ak seen biir alal ji lew xam-xam bi yaatu déggoo gi yaatu gudd fan ngërëmu yàlla di nuyu nag ay dara ay sa mbooj di nuyu njabootu njabootu umu yëy yaa awa Cissé fàttuñ ko docteur an docteur Dramé docteur Diaw waaye docteur Mbeng euh, di nuyu Alaaji Malick sa France fàttuñu daal mbokk yi directement euh, ak bu baax a baax di sargal le directeur général atum jàmm atum naataange bu baax lépp loo xam ne daf koy yéene ci rajo bi ak Sénégal yal na ko yàlla jàppaneel bu baax a baax équipe bi nag maa ngi maa ngi sa équipe yëpp nag waaye surtout nag maa ngi siyaar équipe deski religieux ali imam Alioune Mbaye imam Alioune Sall imam Mbacke Sylla imam Maodo Faye ak ñëpp nag techniciens yi ndax ñoom itam macha allah ndax loo ab loo mën a mën a wax lu mën a mën a bind te techniciens yi participe bu lu sotti kon nag techniciens yi ñoom ñëpp c'est l'équipe entier nu ngi leen di encourager atum jàmm atum naataange baax a baax ki nekkoon ci seen bi bay ngeen ko mën a mën ko dégg moo di Alioune Badara Socé yàlla na defal tawfiq nu ngi siyaar ñëpp di nuyu ñëpp fàttali ñu kenn Sénégal gépp ak fa Sénégal di sant bi yëpp asalaamualeykum wa rahmatulah.